Assalamu alaikum, mbokku téléspectateurs yi c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore une fois aujourd'hui dans votre émission Sénégal Nyofar. avec ak suñu xarit suñu suñu xarit daal <laughs> rahim aousubillahi min rajim assalamu rahmatullah taala wa barakatuhu. bismillahi rahmaani rahim bi kalimatillahi waa ji nee na ma keroog waaye waa ji day léemu ci télé bi de. mais moom en fait <laughs> kan ngay léemu yow. tawakkaltu ala llaahi laa hawla wala quwwata illaa billaah. da ngay dénk sa bopp suñu borom. waaw waaw da <laughs> ngay ak a wóor. moo tax xuli lu noo wax. waaw moom naka neex rek moom. ñi si des yow fi ne nii li maa wax nii ndax neex na wala neexul la. noo fekk ñeent lijjantiwuma la mën na neex kii rek. na nekk si dëgg mu neex ka te mu leer que li maa wax dëgg la. bu lool rek mam jafé jafé waye li ci des ni gërëm rek gërëm rek sante ni ni nuyu ma la. na def tu bien habillé. macha oh, allah merci beaucoup. j'adore les couleurs. Euh, les couleurs vives. qui mm. sont macha allah. yàlla contraste bi fu mu marron bi. waaw maroon couleur bu vive ah. ah. ci la bokk yàlla nga am teranga way amiin way yalla nga am yalla say affaire bax way mais way waay hein? hein yow. madame Badji mi <laughs> yàlla na nga yokk waaye yow aw amiin Badji yàlla na nga yokk Bruno sunu maam yi dañ daan wax baaji baaji yow baaji la bu Casamance baaji yàlla na nga yokk Brune amiin Brune yàlla na am ay teraanga ay teraanga yu romb njortam yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def mais Brune yaa ngi fàttaliku bi noo def vingt-quatre heures ak Bruno moins de 24 heures ah 24 heures c'est une longue histoire c'est avec Bruno Bruno Kepstam, Pa c'est une longue histoire. Hein? mais c'est vrai que Pa il yow. a où Pa Assane Pa c'est vrai qu'on t'entend souvent débattre sur des sujets politiques. ce genre de choses. ce a duré sa vie. mais est-ce que nous ñi réellement kuy Pa ah am nañ xam nañ ne benn xale bu nekk lébu rek bala wax télé yi. mais sa trajectoire est-ce que nous ñi xam ko. Euh, am ko xam xam non yi ñi nga suivre ñu ci ëpp. ñu ëpp ñi nga oh. le chroniqueur le journaliste lañ xam c'est vrai. Euh, c'est un jeune sénégalais. passionné de football. Mm. li sama mm. nga dund ma di c'est le football. moom la ma gëm moom la ma bëgg moom la ma man defoon naa footballeur la maa doon. ndeysaan. yàlla dogal na nag munoon na ma si as tuut nag wax dëgg yàlla. naa footballeur càmmoñ munoon naa footballeur ndeyjoor wax dëgg yàlla. Mm, yow xam naa entrainement entraînement làmmiñ nga gën a def. waaw waaw no non non dama damaa wax li fi ne dama ne. mën na maa footballeur tànk tànk bi mën na maa mm. footballeur tànk bi. mën na maa dóoree penalty tànk bi mën na maa dóoree penalty tànk bi mën na maa dóoree coup franc tànk bi mën na maa dóoree coup franc tànk bi. mën maa dóoree corner tànk bi mën na maa dóoree. Paasan instant yi ñun sa corner yi ngay door rek sa laam lañ leen gis xamuñu li ci des. mais en tout cas am ay xarit yoo xam ni. Hmm. Euh, kasi mel ni Amadou Seen euh, ñaa ak ñoom sama xarit yu baax waaye ay ñoom Cheikh bu nit yu baax yu ma bëgg sama xol. Hmm. ñoo xam ne ñoo on a grandi ensemble entre Rufisque HLM ñoom Babou sàmb hmm. ak euh, sama ay xame yu baax fii HLM 4 HLM 5. ñoom Babou ñoom Demba Badiane. ñoo xam ne ñun bu ñu daan football dañuy kontaan. ndeysaan ak ñoom euh, bu dee sa bokk Rufisque yi ñoom Ousseynou Gueye euh, de Senico ma xarit boobu ñoom euh, ñoom Cheikh Sadibou Niang ñoom Ibrahima Diarra Diouf. Mm. sama xol lañu nekk sama ay nit ay nit yu baax. seen nitu démb daal nitu démb waaw ñoom Cheikh Dieng ñoom Amadou Doucouré Ablaye Doucouré ñoom macha mm. ñoo xam quand je repense à eux sama xel dafa sori parfois je suis ému bu may leen di xalaat. am na ci hmm. ñenn ñoo xam ndeysaan ñoo doon footballandoo euh, su ma xalaatee Lamine Cissé bi ñàkk bakkanam Italie yàlla na ko yàlla yërëm. Euh, xalaat Aliou Cissé aussi Aliou Aliou Cissé bi ñàkk bakkanam Espagne euh, ak ñeneen quoi ñoo xam ni parfois c'est des souvenirs qui reviennent. Hmm. loo man loolu laa la ma gëmoon. bon après nag àdduna comme on dit da ngay dem rek doo xam fan la borom. bi jublee par la suite c'est la presse. Mhm. La presse, c'est une longue histoire aussi, la presse. Il y a la presse, mais pas devant la presse, la communication avant. Entre la faculté de droit et la communication, j'ai fini par choisir la communication. Ce qui a fait que je me suis retrouvé, retrouvé à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication et me suis retrouvé comme par hasard, l'inan destin, il y a le dogal, au moment où je suis étudiant, j'intègre le groupe SAPROM. Youssou head office. ok Il y a di di di par exemple ça me dit que j'ai du plaisir à en parler parce que hmm. j'étais jeune étudiant est fan de lui ah. admirateur et j'ai fait mon mémoire de leadership sur lui donc par rapport à ce qu'il avait réussi etc. Hmm. et je me rappelle euh, Philippe Monnier qui dirigeait Youssou head office autant, qui était son gérant quand il a vu mon document, il a apprécié et a dit à Youssou, il faut le mhm. suivre, c'est un garçon intéressant. Je pense que tout est parti de là à un moment donné. Mhm. Et, je me rappelle le grand qui a créé le, link entre Manak et Youssou, les deux. Le premier, c'est Abou Gay, de Rufisque. Abou Gay, grand ami, un grand frère. Le second, c'est Michael Souma. Michael Souma, ndeysaan. Ah, Michael Souma mon a micro radio. Mhm. donc ci la table radio. radio. j'ai commencé à Dakar FM. Ouais donc euh, Dakar FM autant de Gila Cham, après Gila Cham, Maktar Silla. Mm. Donc, euh, et directeur de Biron Dakar FM autant, c'était Chérif Cham. Donc, moi j'ai vu des gens de grands noms de la radio et de la télé n'est que sous leur coupole. -hmm. Ahmadouba, Biron, chaîne intérieure, et autant j'ai d'excellents souvenirs, par exemple, quand je pense à, quand je pense à, comment on appelle, Dakar FM, je pense à Christian Noël, je pense à Fatou, Fatou Sakho, je pense à, à je pense à, la, à Françoise Sec, RTS. Oui. Je pense à pas mal de gens, Yap Melo, Sonou Baybi, ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. Sonou Abdoulaye Diaw, ak ñeneen, Sek. Ak mais je pense à Sadakan, qui est un papa et un ami, à tant d'autres. ak ñeneen. Mais je pense surtout à une dame

oui je vais vous wax bala l'épisode de Dakar FM. Biti Bao. xam nga Sénégal fii dafa bëri ay ñuy wax ci et yi télé les voix. les voix oui. la voix qui m'a marqué dans ma toute petite carrière d'audio de télé etc. C'est Petit Bao. Biti Baawo. ndeysaan je j'ai une pensée forte à sa famille. à mhm. ak ak son mari son fils ndeysaan sax son mari était à la Cédima ok et je ne veux pas rechasser revenir sur des détails mais j'ai toujours cette image de Betty mhm. qui rentre dans le studio toujours speed ça va les gars vous allez bien Donc si le dernier mercredi où je l'ai vu on devait faire une émission qui s'appelait Rendez-vous des jeunes l'émission que je faisais avec François Sec et Yakham mhm. et ce jour-là Betty est venue elle avait une émission vite fait elle vient à dit elle dit à Christian Chris c'est bon là, on peut y aller. Je suis en retard là, mm. C'est la dernière fois que je la voyais. C'était en 98. Et une semaine, le samedi qui suit, le mercredi là, on nous dit qu'elle a eu un accident sur Saint-Louis, qu'elle était partie. Ce sont des souvenirs qui ont peuvent peut-être mm. toucher les gens, mm-hmm. mais dont je me rappelle et qui, qui ont fondé ce que nous sommes aujourd'hui. Exactement. Des gens qu'on adore, qu'on aime,

te musique musique je suis mhm. chargé de communication de à head office. Djololi, voilà les événements c'est Khersibirou c'est Bessie, c'est tant de trucs. Dieu a fait que par la grâce de Dieu et la confiance de Youssou et toutes ses équipes, mhm. euh, de toute la famille Ngoné, Ibrahim Ndiaga, Boubo, tout le monde, on a eu à collaborer. Et, et dignement, dignement, sainement, on a eu à contribuer. Autant on a apporté nos petites idées, -hmm. autant on a beaucoup appris là-bas. Voilà. Donc, okay. euh, euh Head Office, je n'oublierai jamais. Pas mm, mm, mm, ouais. macha allah expérience bi toll na nii waaw buñ ko fi naree wax moom duñ fi jóge temps yi mais Paasan. waaw léegi nañ dellu si situation dëkk bi. yow euh, chaîne bi yaa ngi nous di wax ak diko like di bës bon déjà déjà déjà il faut ñu dem ci chaîne bi SNF1 TV wala ñu wax Pa Assane Seck TV Pas Assane Seck TV sur YouTube donc abonnez-vous partagez kay jërëjëf bu ma paré ñu tek ñun kay ñun entre ñun légui nañ waxtaan ci ci ci situation dëkk bi Pa Assane mm-hmm. man de wax dëgg yàlla dama am lu ma metti depuis que may déglu histoire détenu ni ñu jot a ni, en fait xaw ma sax la laa ci wara wax exactement mais maintenant, maintenant c'est compliqué c'est c'est compliqué da ruslu oh. da ruslu moi j'ai honte en regardant les images amna yo xam ne ko sa il y a plein de vidéos que je reçois lol la waa ji amna yo xam da fay commencer wax am fumu dugg rek ma couper parce que du ma bëgg je veux pas entendre tu sais pourquoi dugg kasso rek musiba la yàlla ñu ci yalla musal musal yàlla ñu ëmp ñun ñëpp et en 2024 ay nit dañuy génn kasso nek ay star nek ay nit yu ñoo taaj tu t'imagines ci jamono nit bu bu newaan dafa génn prison day làqatu c'est mal c'est malheureux mais il y a du positif pourquoi du positif parce que bu jëk ñoo nga xam dañ leen daan stigmatiser tay duñ leen stigmatiser dañ naan waajikat dafa def erreur ñu duggal ko kasso wala dañ ko togn duggal ko kaso. wala naka su dul je vois des gens bi ma gën marqué moy le les deux frères qui sortent à qui on dit leur maman leur est partie leur maman est partie. Euh, ndeysaan kenn ki jooy na jooy yu xol quoi. alors amna ño xamni xam ni ben côté bi amna na côté bo xamni ni di nga gis yaay wala papa bu ñew taxaw xalé yi di génn di génn du gis domam fekk domam nenañu ñak ñàkk bu yag te yëgu ko. ñàkk na ci biir prison bi. manam febar na yóbbu nañ ko a ah, wuy jën a boromam fekk waxuñu ko seen waak kër. Mhm. wara ñew taxaw di xaar ñu génn ka wala mu genn ñu taxaw di am yaaka ñuy latti gisuñu ko gisuñu gis ba mhm. ba ñu war ne len nangam. tu vois un peu non non si je comprends je je comprends man li li gënon tax sax ma bëggoon ñu wax ci moy euh, explication yi xalé yi di joxe buñ genné man damay ragal est-ce que du jur ci ñom ben révolte. wala même nit ñi leen di déglu sax est-ce que duñ ci jóg merewaale ñi nga xam ne ñoo yor suñu kaaraange on alors yaa yaa yaa dafa am benn affaire bu am boo xam ni malheureusement malheureusement ki ka sooke moo la nguur gi fi nekk le mm. président Macky Sall ak ñi mu àndal l'erreur c'est quoi topp ngeen benn nit bu tudd Ousmane Sonko mm. topp topp topp ba mu jaral leen loolook lool mooy erreur bi gën a mag ci àdduna man jàpp naa sax ki gën a tooñ Sénégal mooy ki wax président Macky Sall ne ko dàqal Ousmane Sonko. Mhm. xaw ma kan la. Mhm. mais kooku j'aurais aimé bu fekkee président dañ ko ka xelal ka xelal rey na ka rey na Sénégal su fekkee moo ko xalaatal boppam rey na ñu. Mhm. mais l'un dans l'autre topp benn adversaire politique ci lan waa ji sa employé la woon nga dàq ko ci lu dul yoon. mu góor góorlu jàmbaar dem lijjanti nit ñi topp ko dooleel ko def ko député nga toppati ko tongal ko nga fexe ba mu génn assemblée ñu war a dem ci beneen élection nga ruube jaxase ba yàq liste génne ko ci encore ñeen ñi naan liste ba ak a yàq ak nangam nangam mais liste loolu bu ñu ci duggee dafa sori parce que <laughs> la yàq liste ba ak ñaka yàq ñaka yàq ñoom ñoom ci biir yeewi askan wi la mm-hmm. waaye ca biir yeewi askan wi ña ko def ak ñañ kaa tuumal entre ñañ kaa tuumal ak ña ko def wute wure wu wuroo na mhm. ndax lañ ca xam bare na mhm. waaye nag ñamu conseil nga xam nañu au delà nga topp Ousmane Sonko topp ko topp ko te te nguur bi fi mu tàmbalee mooy 2014 attaqué déjà Karim Meïssa Wade dem ba ci biir ñu gis ne que lañ ko doon jiiñ lañ ko doon gisuñu ko mais bàyyi leen ko mu dem ñu lànk insister 24 personnes yi woon yi ñu waroon téye ak Karim ñu bàyyi leen problème là, injustice ko tàmbali. 2014 Khalifa ne dem élection municipale ou élection locale <clears throat> Mbaye Ndiaye sunu baye bi ne Khalifa su bëggee nek maire Dakar day ñëw APR injustice commencé dugg parce que dafa bëgg maire bi mu dem élection gagné ngén né kon nañ ko yakal ngén xex ko takal ko tuumaal ko la ngén ko tuumaal dossier balen rapport balen IG e jox inspection générale d'État. duma faté mouk pap mukk Pape Alé bi mu leen koy wax ay temps naan leen ba Alé di wax sur le principe ne que Khalifa Abou Sall Ngour gi de carton, di expliquer le rapport de l'IGE Khalifa Abou Sall di wax gars yi ne leen mais rapport boobu bu fekkee man dama def te nee na dama def hmm. génne li rapport bi wax Ngour gi lank lolo tax man sumay may dégg nit tay di wax naan Khalifa daf ñu amel un milliard 800 dama damay ne mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays c'est pas parce que dama contre nit que damay wax lu amul hmm. damay wax dëgg ils l'ont dañoo togn Karim Meïssa togn Khalifa Abou Sall Karim dañ ko togn ca contexte ba boo fekkee da ngaa accuser nit ne ko sàcc nga. waaw yaay indi preuve soo indiwul preuve sàccul même bu dee nee nga sàcc na wuy ma même bu nee nga sàcc na. tamit wuy ma déglu kayit lañoo wax yow yaa ne diw yow nan nga mën ba pare sax même bu dara yow yaa yor état yaa mm. lu Karim def ak lu mu deful xam nga. ngeen vérifier ñeent ministères yi mu yoroon gis ne defu fa dara. ngeen ne waaye terewul xaalis bi moo fonctionné nii fan la jóge kii te alal ji mu yor nii dafa bare hmm. son papa s'appelle Abdoulaye Wade c'est le président du Sénégal hmm. Abdoulaye Wade dafa amoon ay caisse noire caisse noire ci jamono dañ doon wax président Macky Sall ne nee na Abdoulaye da ko may huit milliards Abdoulaye Wade génn weddi loolu bu fekkee Abdoulaye Wade la may huit milliards Abdoulaye Wade mënul may doom dix milliards je dis comme ça basique hmm. en passant. Okay. la charge de la preuve incombe à l'accusateur ak jiin munoo ko ñu ne la kon baka man ba ñu toogee ba def illicite daal di dem Monaco dem ci tribunal, partout fond dem gars yi ne leen yéen li ngeen preuve yi munuñu ko man ma taxaw ma Karim wad bañ na de compte yon le ñu woo ko ma ci mais liñ kaa gina amol amul fu ngeen a autres personnes ont ni def nañu loolu ak a Ousmane Ngom sanu bàyyi bi ñu fekk Kolda hélicoptère indi mm, mm. ngeen ñëw bàyyi ñooñu ñëpp kon bàyyi leen doomu jàmbur ji Ablaye Wade nag loo ko mënti waxal jiwul président Macky Sall que la ma C'est ci principe ok nga jàll ci Karim dem ci Khalifa même bêtisier léegi loolu ñu le Khalifa ak Karim Ousmane Sonko taxaw jël position pour Khalifa ak Karim ci injustice bañ moo tax bugguma aujourd'hui di toog di dégg nit ka ànd ak Ousmane Sonko muy wax ci sensu Karim daf noo ameel xalifa daf noo ameel parce que Ousmane ci boppam gëmut loolu ndax xam na ne injustice lañ leen tegoon moo tax mu jël position ci loolu léegi nag Ousmane voyant que def nañu ko kii ak kii mu ne man li ngeen def xalifa ak Karim du ngeen ma ka def mm-hmm. et il a eu raison de d'agir ainsi kando bi récemment baa ngi si ñuul daw mais yow merci Khalil bàyyi ma chuté Ah, loolu Ousmane gis te ak maaka si naw te bëgg kësi hmm. mu ne lii ngeen def diw ak diw du ngeen ma ko def moo jur résistance waaw résistance boobu moo ñu indi fii nii lii ne